salaamaaleykum sëriñ Moustapha maa ngi lay ziar bu baax di la jox sa waay di leen di ziar bu baax di jégalu bu baax ci coono yi vocal yu bëri yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax kay ñu leen jox seen wàccaay bu baax a baax kay buñ ci amoon ndigal de bëggoon nañ laaj benn laaj bu ñu bu ñu yitteel lool lool lool sax ndeysaan waaye nag moom bés boo gënee boo amee jot rek mën nga koo tontu yàkkamtiwul ndax laaj bu am bu ñu amal solo lool ndeysaan ñu bëggoon xam benn mbir ndax lu yàggul daal dañ doon toog di xalaat xalaat bi nag moom comme suñu xalaat boo xam ne suñu bopp lañ ko jëmale daal ndax laaj bi ñu doon laaj mooy dañoo toogoon lu yàgg di laaj di xalaat naan ma doon laaj sama gëm yàlla daal fan la toll ndax comme day mel ni bu ma saytoo daal di di déglu sa vidéo yu bëri sax ndax damay jàngaat ci lu bëri mooy nit ku nekk rek war ngaa war ngaa saytu sa bopp daal mooy comme li nga doon wax ci sa vidéo yu bëri yi mooy kene yow daa am laaj boo xam ne da nga koy laaj sa bopp ndax booy bind livre daa am laaj boo xam ne question boo xam ne da nga koy laaj sa bopp pour mën a mën a wut réponse ndax sa bopp ngay laaj daal moo tax loolu dafa ma amaloon solo loolu ma doon après nag loolu poussé ma ma xalaat daal mooy ma laaj sama bopp ne man sama gëm yàlla fan la toll ma commencé laaj ne tey bu fekkoon ne est-ce que sama gëm yàlla lalul ci ne xéwal bi ma yàlla di xéwale moo tax ma gëm ko wala est-ce que nekkul ne aljana bi ñu dig la wala safara bi ñu dig ndax li ma wax ci safara moo tax est-ce que nekkul ne loolu laa ragal ba nga xam ne ne damay jaamu yàlla wala aljana bi ñu dig moom laa bëgg xay xayma ko ba nga xam ne ne moom moom poussé may jaamu yàlla wala yu bëri yoo xam ne du ma ko def ndax safara laa ragal a dem wala maa ngi xalaat biir bàmmeel sa nekk loolu moom moo lal sama gëm yàlla ba doon xalaat ba dem di xalaat naan comme yaakaaroon naa ne nag gëm yàlla bu gën a sell mooy nga xam ne ne da ngay gëm yàlla te lenn lalu ko daal nga xam ne ne jëmmi yàlla bi rek moom li mu la sant da nga koy def waaye defoo ko ngir aljana wala defoo ko ngir safara daal waaye da ngay xam ne ne yàlla mooy sa buur nga nga nga def ko def ko kii def li mu la sant daal def li mu la sant daal te te comme comme tamit nga xam ne ne donte bu fekkoon ne sax da ngay ñaan yàlla yàlla mayu mayu la wuyuwu la tamit teewul ne di nga tool sa gëm du bouse mètre daal waaye question boobu ma ko laajee sama bopp ma laaj ne ne est-ce que sama gëm laluwut ci loolu ndax safara beeg wala aljana bi moo tax ma gëm wa moo tax daal may jaamu yàlla daal waaye gëm bi moom moom ndax mooy tax may jaamu yàlla wala déet léegi nag comme après ma xalaat waaye sama xel bi joxuma waaw joxuma déedéet man ma xalaat sama jëmmi bopp ne comme que damaa laaj question bopp sama xel joxuma waaw joxuma déet mooy damay jël bi gën a yéeme mooy comme sama xel nanguwul tracé mooy waaw kon mooy kon ça veut dire que kon sama gëm yàlla kon daa lalu ci xéewal yi ak wala digg yi ma doon xam nag comme bu fekkee ne tamit leneen la comme bu fekkee ne ajuwut si loolu ma xam ne loolu taw feex la waaye moom comme nit ki moom dama dama dégg ne nit ki fépp fu mu yem rek moo fa yemale boppam ma jël li gën a yées nga xam ne dinaa mën a jubli ci lu gën a baax mooy comme lii ma jàpp daal li ma jàpp mën naa am tamit jumte la waaye nag comme li ma jàpp ma ma jàpp ne gëm yàlla daal xam naa ne li ma jàpp ne moo war a gën a kawe mooy nga xam ne da ngay gëm yàlla te du lalu ci benn mbir da nga koy gëm rek ndax da nga koy da nga koy jaamu rek ngir ngir pas xéewal yi may def waaye jëmmi yàlla bi rek moo tax nga koy jaamu yaakaar ne loolu gën a kawe te xam naa ne comme sama xel mi joxuma ne ma loolu laa ci loolu laa nekk ma ne naa jublu ci loolu ma bëggoon xam daal question bi may laaj mooy ma bëggoon xam ne ne comme nit ki nan lay def wala ban yoon lay tegu ba dem ba ci biir lépp lu mu mënti def muy nga xam ne ne muy jaamu yàlla wala muy muy muy muy muy def lépp lu mu mënti def nga xam ne ne jëmi yàlla ji rek a koy tax a koy def nan la nit di tegu ci yoon daal ba am loolu te boo ko amee noo koy xamee te est-ce que nit ki tamit bu fekkee ne nit ki mënut yegg ci maqama boobu daal tawfeex boobu noonu est-ce que bu deewaalee nga xam ne lépp loo xam ne ne mu ngi koy def ci jaamu yàlla ngir xéewal yi ko yàlla dig wala may yi ko yàlla di may wala ragal safara est-ce que nit ki bu deewaale ci xalaat boobu noonu est-ce que du ko nekk loo xam ne dina koy lor yomal xiyam daal mu doon laaj daal xam naa ne bu xaw a profond lool sax ndeysaan moo bëggoon daal nga leeral ma ci bu baax a baax a baax ndax daf maa yitte lool ndax dama ko démb ci guddi dama ko toog xalaat daal ndax comme vidéo yi may seetaan yëpp yëpp si vidéo yi may seetaan yëpp daal li ma poussé daal xam naa ne moom mooy ma laajaat sama bopp daal man fi ma nekk ak fi ma toll. moo tax ndax dama se- seetaan naa moom kay maa ngi koy wat ne xam naa ne sa- war naa seetaan boo xoolee plus de xam naa ne dix heures de visionnage daal de vidéo xam naa ne sa vidéo yi dix heures kay dix heures de temps seetaan naa ko sa vidéo chaque bés bu nekk rek bu may liggéey damay takk sama écouteur yi xam naa ne seetaan naa ko waaye comme li ma ci jàngat yu bëri daal mooy yu am solo waaye li ma ci jàngataat lu bëri moom mooy mooy réew mooy xalaat ak xalaat jëm ci sa bopp daal mooy nga laajaat sa bopp fi nga toll waaw ndax réflexion boobu noonu tamit laaj bi may laaj sama bopp du du comme dute naa sama gëm waaye bëgg lu gën a kawe ndax comme li ma li ma jàpp mooy nit ki fépp fu mu yem moo fa yemale boppam te mbiru yàlla yo yaatu na lool ma xalaat ne est-ce que amul beneen boo xam ne ne mooy gën a fort loolu ma xalaat ne kon ma xalaat ne ne man sama sama yaakaar bi ma yaakaar yàlla ak ni ma ko bëggee ak yooyu jëm bi ma ciy jëm est-ce que nekkul aljana bi ñu dikk wala safara ma laaj sama bopp ne est-ce que loolu yëpp bu amul tutoon aljana amul safara amul est-ce que dinaa ko jaamu wala ma laaj sama bopp ne bu fekkoon safara amul aljana amul yàlla xéewaluñu defaluñu dara est-ce que ni ma koy jaamoo ni dinaa ko jaamoo noonu après nag ma xalaat ne comme sama xel bi daf maa wax bii ne ma waaw bii ne ma déedéet ma aw ma ci lu leer ma ci xel ñaar ma jàpp lu gën a ndaw li mooy kon bu fekkoon loolu amul kon duma ko jaamu ma jàpp loolu pour mën a jublu ci lu gën a baax mooy nga xam ne danga koy jaamu même bu dara amul sax nga jaamu ko mooy xam naa ne loolu laa jubloon yaakaar ne loolu moo gën kawe daal ma bëggoon xam daal nga leeral ma ci bu baax xaw ma nag ndax comme li ma wax xaw naa leer ndax daa xaw a jaaxasoo sama bopp bi lool ñu ngi tubaat bu baax a baax di santaat bu baax di jégalu bu baax a baax ci coono yi ak vocal yi ndeysaan alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi leen di ñaanal suñu borom defal leen tawfeex yu gën a kawe defal leen tawfeex yu gën a kawe xam-xam bi ngeen di partagé ak jàngale yi ngeen di jàngale suñu borom defal leen ngeen xam ne ne moom day sax day sax abadan nga xam ne ne day nekk ay xéewal yoo xam ne ne day nekk xéewalu àdduna ak àllaaxira mu nekk yiw bu dul jeex mukk mukk mukk mukk mukk sax mukk mukk mukk sax mu mujjee mu nekk yiw bu dul jeex mukk ñu ngi leen di ñaanal suñu borom taxawu leen bu baax a baax dëgëral yaram bi bu baax xam-xam bi yàlla def mu gën a seetlu lool nga xam ne ne jëmmi borom bi rek moo tax muy nekk muy am moom mooy tax rek nga koy def yàlla na ko suñu borom gën a dëgëral ndeysaan sant nañ leen bu baax ñu ngi jéggaluwaat bu baax a baax a baax.
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu fattaahu wahabu yaa warsaqu yamaki iftahu wahabliya warsuqni ko dina aana deqi ajila ajalan bil bisi mamaradin xata uqima li dinillahi arkana yasiru juwaani tuuba waxmini wa qini atawaaw السماء والأرض وحب يا مشاكل أجيب أسبوع من حسني محمد ما تبقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته boobu bakar kayit ñu ñu ngi lay siyaare di leen bu baax a baax di wax amin amin yu bëree bëri amin amin ci ñaan yu tedd yi yu sell yi xam naa di dikk ci sa réflexion bi bi nga def rek bu am solo bi bu am maanaa bi réflexion bi nitu dig def nga ko am solo sant naa ci lool yàlla ne kon waxtaan wi kon yóbbu na la foofu kon alhamdulilah yàlla yàlla na yàlla na fa yóbbu mbooloo ak sëñ Tuubaa waaw réflexion nitu dig waaw lu am solo la lu am solo la waaw laaj sa laaj yooyu ngay ngay ci ci ngay laaj nit dafa war a laaj laaj boppam ndax nit moom daa mel ne su borom noonu mu wéetee ku mu ab soppeem bu ne day bëgg wéete ak moom wéetoo ak moom wéetoo ak moom moo tax kon kenn ku ne ci noonu war naa laaj waaw waaw lii lii moom ñëw gi ñëw ci àdduna bi àdduna bi jëkk rek say bët xër bi nga xool gis seen gis ndey lii ndey ji ginnaaw jàggoon nga ak moom moom kon da ngeen mën a am ci relation boo xam ne ak cofeel ak danga moo ci moo fay jaar xam ne danga ko mën a wétali ko am suba mu sax na ñu ñu am wétali waaye boo doxee tuuti ba am ñaari at ñett nag juróom-ñaari at da nga daal di di di taqale ko woy juróom noonu noonu gi- ginaar yi di di ferale seen doom yi di leen copp da- daq leen waaw ma ma ma ma ma ma yooyu yëngu ci àdduna àdduna gi ñu nekkoon àdduna jooju nga gis mu mu mu ne xawit waaw lu waaw lii nag kon question dina na judd waaw waaw moom lii nga ne ah lii àdduna la Abdul nga ne ah waaw ku ma fi andi nag ngay ngay gis ci loola bo boole gi demee am taw taw ba xam ko da da te te question la bu ñu waxtu moom xam ne am na ku la fi andi kooku comme doon ba demee ca Descartes alkamal lay andi mu ak mat ginnaaw moom daa maa ngi ko comme noonu ngay noonu noonu nga doxee ci xaatim bi li gën a néew nga ngay xool mooy yow li li gën a kawe kon kon mooy mooy keneen ka kon noonu nga daal di di di xoolee gëm googu mën a gëm yàlla gi mu am na waaye li gëm yàlla gi mu amee ba noppi gëm jaamu ko moo ca topp gëm ne da nga ko war a jaamu léegi nag jaamu gi ngir lan da nga koy jaamu ngir xéewal yi wala da nga koy jaamu ngir lan dafa yow jaamu foofu sharia ak xaqiqa foofu la ñuy daal di mel ne mel ne li imaamu junni di waxoon ashariatu an taabuda régal ma régal yooyu ñu teg fii léegi woor nangam ak asakaak dem ak xet mel noonu bañatuñ sa morom nangam bool tooñee mën ngaa fayu xaqi xaqiqa dikk moom daal ne la an taqsida nga jublu yàlla ci lépp lay def ñu ki sax dala day tooñ doo fayu ngir yàlla nga xam ne si sa jëf yëpp ngir yàlla waaye loolu loolu loolu procédure lay laaj entraînement lay laaj boo xam ne da nga koy def entraînement méthodique boo xam ne da nga koy def ngir mu yóbbu la ci la gën a kawe ndax xam nga ne am na lu gën a kawe entraînement boobu moo ci entraînement mystique boobu tarbiya loolu mooy tarbiya tarbiya moo xam ko la mën a mooy condition wala mu jox la nga jënd ko condition jënd condition ji jënd ma ci jublu mooy jox la tur yàlla ñu la dem am so soo naar góor ngoog boo xam ne jëfal nañ ko jëfal nañ ko soo naar góor ngoog boo xam ne jëfal nañ ko ba ba ba mu suur soo bëggee raw ci ko si biir man nga ko war ñoo nga xam ne nga xam ne nga xam ne boo ci boo ci doxee mën ngaa dox ci al alpana u saaxir alpana u bari nga xam ne léegi li saaxir si li ngay gis lépp bañ laa fab bi bañ laa guddi adduna ñi adduna ñi mu ne ko sëñ Abdoulaye waxee doyoo ci la bari ndox doo doo doo lañ fekk. kon loo ko seen mu mu kawee ta tabax yeeg oto yeeg yëpp ci suuf si lu jógee rek. loolu la Cheikh Mouhamed Fadel waxoon rétend wax des la sur xanaa daal di ne vraiment foo ko traité lu ci kaw suuf si suuf la jëm. nga xam ne nekkoon suuf la mu daal di mu daal di mu daal di leer léegi yëngu ci sa bopp yow loo xam ne du matière mooy ruux am nga lu yëg réflexion bi li koy def du matière donte ne da nga da da nga gis ñu naan artificiel art art artificiel intelligence mën naa jël wan la lu mel ne lu am te amut waaye waaye loolu bukk ak ruux sa réflexion loolu loolu loolu xel moo ko programmé ci ci ordinateur bi rek ci matière waaye waaye xel mi ko programmé ko ko kon mooy dara léegi alfanaawul baatin nag léegi nag nga daal di nag ciblé yàlla daal daal ne man ko léegi yàlla laay xool ci lépp léegi nag boo ci doxee nag ba ci kanam loolee sayyidatuna Maryam radiyallahu anha wa xarit la sirha radiyallahu anha dawiye doon woote doon doon woote mooy almahabba mahabbatullah sopp yàlla alxubul ilahi wala al ishqu ilahi al ishq sopp yàlla ba jeex ci ba am taxatub maanaam léegi ba duutoo ko tara ba duutoo ko teg duutoo gisa si dara fanaawul saaxir bari lépp na kooku kooku ah wala loo xam ne nga def aji entraînement nag boo xam ne wala nga am tawfeex jar rek xam ne da muraad nga bu dee murid nga moom da nga koy wut entraîné wu ci ba keroog nga nga nga di ko am waaye yow Boubacar yow ni nga def jaamu yàlla gi nga jaamu yàlla bu dee ci sa réflexion bi da ngaa gis ne ndax du ne xéwal yi xam nga wax nga fi ne kat ndax bu bu bu ma yàlla xéwal xéwal wu itoon dara ndax kon ndaxu jaamu dégg yàlla moom am gi nga am xéwalam la waaw yàlla moom kenn du kenn du dañ talu ci moom kenn du dañ talu ci xéwalam yi waaw boo mën a nekk ci loo mën a nekk waa ji wéra di woon wéra di wéra di bay bëgg a faatu mi ngi ci xéewal ndax am na ko faatu saal bi mu ne rek am na ko faatu am néew baa nga ne mu seen ko xam ne kee faatu na te moom faatuwul ki faatu moom it mi ngi ci xéewal ndax coono yim nekkoon génn na ca waaw waaw ki ki ki ki ne sawar sax mi ngi ci xéewal ndax dañ ko war a raxas bu seetee mu dem ajana moom nit moom ak amam rek existence bi xéewal la waaw existence nga mënoo ko may sa sa bopp kon loolu xéewal la parce que li xéewal yi moom mu ne mu ne si gis yéen waaye nag léegi yow bi ngay bi ngay bi ngay jàppee ne que xéewal yi moo tax ngay jaamu loolu loolu mooy darajatul fuqaha ahlu sharia ñoom ñoo ñoom bu jaaloo boo boo jaaloo dem sawara kon ñoom duñ jaaloo ngir bañ a dem sawara suñ bi nag nee na nag sugan yi moom da day bañ a njaaloo ngir yàlla xas dan duki lay taal ak yàlla yàlla kat daa sib njaaloo kon yow it nga ciblé ko ko ci bañ ko ko ciblé sib ci nga nga maanaam nga bañ le ko yàlla loolu nag ay daraje la yoo xam ne moom daa kawe waaye sa doxin woowu boo ko wàccut maanaam léegi da nga ko am léegi nag tarbiya li tax ñu so ñu soxla woo ko mooy mooy daal dina gaaw réflexion bi képp doyul bi réflexion bi ñu ko defee ba noppi ba xam ne kat léegi loolu ñu wax ci falsafa na dëx sa yéemu ab benn asaba la benn piste la bu boy déparé waaye kenn du fa taxaw dafuñu toll yooyu léegi yaa ngi ci piste bi nga xam ne ci nga war a départ ci la ci la sa avion war a départ nag daal di naaw fitti léeg-léeg nag tërbiye moo la ciy dimbale man laa fittiloo entraîné la jox la jox jox la ay bagages waaw lu am solo bu bu bu bu kat kayita sa réflexion bi am na solo lool lool sant sant naa ci yàlla nekkoon waxtaan yi sama waxtaan yi nga diglu wala waxtaan yi yàlla jaarale ci man nga nga diglu ko ci nga amee rek ci ci réflexion boobu xam naa kon jumbul am na ñeen ñoo xam ne am na am na ko te maa ngi koy dégg ñoo xam ne ñu ngi wax ne yaa ngi ñuy tërbiye par distance kon kon alhamdulilahi waaw sama maa ngi koy sant yàlla ci sant gam ma xamal ma di ko sante أحمد ربي مر الأسماني في كل كافة مع الديواني أحمده حمد السمد الباري بكل تنزيه مع الأبرار مبسملا محوقلا لله ما ساعة الله صمت عنه